asalaamaaleykum ami cher internet 313 digital ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen waay gis nañ ne que démb coach Aliou Cissé jote na joxe liste des lions yi nga xam ne ñoom ñoo war dem ci coupe du monde waaye remarqué ne nañ kii di Saliou Ciss moom il fait pas partie de la sélection fu mu nekk nii nag les avis divers dinañ jéem a jël quelques réactions. salaamaaleykum sëñ bi. Eh, maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi ziar de di la nuyu bu baax baa yaa ngi am tawféex. waaw waaw di am tawféex bu baax a baax sax. waaw euh, démb gis nañ ki nga xam ne euh, mooy le coach de l' équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé euh, jot na génne joueurs yi nga xam ne ñoom ñoo war a dem coupe du monde waaye Saliou Ciss moom bokk si loo xalaat si loolu. mais ñi ngi lu ñi ngi rafetlu si coach bi ni mu def mais comme moom li mu li tànn noonu la tànn ndax moom mooy coach bi mais tamit sénégalais tamit am nañ droit tamit wax seen réaction si li ñu gis quoi ndax ñoom tamit ni coach bi seetaanee noonu la ñu seetaanee joueurs mais Saliou Ciss gis nañ li mu def si Coupe d'Afrique bi lu rëy la def ba Sénégal yëpp nangul ko même bu amul compétition bu amulee club normalement dañ ko war a sélectionner pour mu ñëw satisfaire équipe nationale ndax équipe nationale bi yëpp ñu ngi ko doon xaar ndax Sénégalais Sénégalais ak monde entier bi yëpp ñu ngi doon xaar présence si équipe nationale ndax lu muy apporter l'équipe bi mais am club tax tax footballoo sa club day mel ne comme genre Fodé Balda Touré ak yeneen yi nga xamante ni dañu bokk si club te footballuñu ak équipe bi nga xamante ni daa toog amul club ñoom ñaar ñoo yem képp te bu ñu xoolee si équipe nationale U20 20 17 yi Samba Diallo amul club daa nekkoon France di entraîner entraînement yi métti mais bi mu ñëwee si équipe nationale bi daa apporter booy lu bëre jël ba jël coupe bi. mais euh, coupe d'Afrique ak coupe du monde c'est pas la même chose joueur bu mel ni Saliou Ciss est-ce que c'est normal amul club compétirul mu war a dem si compétition bi mel ni coupe du monde yow loolu lan nga si xalaat. mais loolu du dara si si si si bi nga xamante war sportif bi nga xam football match yi nga nekk si compétition nekk si compétition Sadio Mané daa nekk si compétition ba xëy blessé normalement daa am période yoo xam boo fa tollee si compétition au niveau surtout nga nekk professionnel dafa am foo xam da war a noppalu pour mën a récupérer pour am temps fort boo xam te ni boo duggee si coupe du monde yi mën a bokk si match bi loolu loolu yëpp ay waxu gars yi la rek comme ñoom xas nañ ba bëgg Sadio Mané seen xol ba pare tamit Sadio Mané ku baax si équipe nationale la ndax boo xoolee presque 70 pour cent si équipe nationale ku baax mais loolu kenn du teg si kenn loolu mooy sonal Sénégal mi bi contre Algérie loolu moo ñu dal ndax suñu xel yëpp si Kalidou Koulibaly lañ ko tegoon ba ba li ñu si fekk fekk ñu si. ban message ngay lancé euh, peuple sénégalais bi supporters yi pour suñu gaynde yi mais peuple sénégalais bi moom li leen lancé benn appel mooy. niñ meloon si coupe d' afrique bi rek ñu nekk benn senegal yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñun ñëpp sénégal lañ bëgg mu gagné ñun ñëpp muy ñi nekk Saint-Louis ñi nekk dakar ñi nekk si région yëpp sénégal lañ bëgg mu gagné mais na ñëpp jàpp ñëpp jàpp waaw sénégal bi football gars yi sol maillot yi génn si koñ yi même bu ñu yëngal ñu wane ñun ay patriote la mais maillot yi cher na de mais c' est pas grave sénégal jarul ëpp loolu xam nga sénégal kii sa nation yow lim la jaral moo ëpp maillot yi xaalis bi du dara mais l' essentiel mooy nga sol maillot bi waaw nga sol maillot bi wane ni yow mi sénégalais nga quoi loolu daal laa bëgg si supporter rek ñu génn ba pare tamit ñi nga xam ne ñoo yore ay wàllum mystique beeg affaire yooyu ñu ñu ñu bàyyi lu ñu koy wax waa comme tey ñuy ñëw xëy naan Sénégal lañ koy doo 2-0 wala Sénégal mooy gañ yooyu amul fi lu war a am suba yàlla rek moo xam waaw di ñaanal Sénégal waaw mu soree ci coupe di monde yi ba yàlla bu defee mu jël ko tamit waaw dina gën a baax si affaire yi. grand ñu ngi lay jaajëfal jaajëfaay. Euh, démb gis concernant joueurs yi war a dem euh, coupe du monde bi waaye on a vu que Saliou Ciss euh, malheureusement il fait pas partie de ce groupe loo si xalaat. ah loolu moom ñun sénégalais yi d'accord si quoi ndax du aspect bu bu logique quoi yaa gën a xam mais mënoon na woo Saliou Ciss parce que ñoom ñoo demoon indi fii nii coupe d'Afrique bi gën a xam ak objectif bu mu am daanaka moom Saliou Ciss moom au moins moom joueur bu kii la bu offensif la day dem si kii bi créer ay penalty sinon ay fautes yaa gën a xam quoi. mais suñu yeneen euh, latéraux yi Fodé Ballo Touré Ismaël Jakobs loo yaakaar si ñoom. ah ñun tamit ay joueurs yu baax leen de waaye Saliou moo leen gën a taxaw na Saliou Ciss moom couloir am dina dox dina défensif dina offensif macha allah moom moo ñu gën a. am nga yaakaar si équipe bi. am naa si yaakaar kay objectif ni am ne Afrique gëm naa ni kenn amu ko quoi te gëm naa ni Sénégal dina indi ko bi incha allah. ah bonjour monsieur ça va. baa yaa ngi am taw. waaw ñu ngi si jàmm. démb gis nañ ne que coach Aliou Cissé génnee na liste des joueurs yi war a dem si mondial bi mais gisuñu euh, joueur bu mel ni Saliou Cissé loo xalaat si loolu. non t'inquiète équipe bi mooy comme coupe d'Afrique bi la coupe d'Afrique bi am na joueurs yu bëri ñu leen c'est pas leur chance équipe nag ah ku ñu woo na dem ku ñu woowul bul mer parce que nous tous nous sommes des sénégalais xëy na yàllaa def noonu waa ji narul bokk bokkoon na am ndam mais na ñaanal moromam yi bu si kenn kaas bu si kenn wax. parce que moom keroog ba muy am coupe d'Afrique xalaatul woon ni dina ko am wala dina bokk comme que bokk na bokkul bu mu mer xam nga léegi ku ñu woo tamit ñu ñu woo côté nañ def ni moom am jom indi ñu waat ndam parce que ñu loolu la ñaan ñu ñëpp ñoo bok équipe bi Saliou Ciss bu ñëwulee keneen ñëwul même Sadio Mané dañu waxoon du ñëw mais effectivement ñëw na mais ku ñëwul am na am na ku mun a togo sa place parce que yàlla may nañ ndam ba pare waaw ñun ndaaw suñu deux mille deux mille deux ba deux mille vingt deux Sénégal Sénégal bu neex lay doon dafay dafa leer mm. waxoon naa ne si coupe bi nee naa ne coupe d' Afrique nii mm. li woon du du woon sax compétition dañ doon entraîner pour préparer suñu coupe du monde ñun coupe du monde moo ñu ñor waaw lu kenn musul jël ci Afrique lii dafa leer te man naa ko sama gaay sama joueur yi maa leen di ñaan yéen ñëpp benn ngeen ku ñu jël bul mer ku ñu jël daf leen am continuer leen jom bi rek. jàppante leen benn ngeen quoi on est ensemble ñun ñu ngi seen ginnaaw surtout man maa ni ñaara nag te ndam bii nii gis naa ko ku ñu am jom ngeen te day ñëw coupe du monde bi c'est la première coupe du monde du pays continent africain du continent africain surtout le premier pays Sénégal qui va le prendre incha allah. ñu ngi lay jaajëfal. waaw ah, amiin waay merci beaucoup. gis nañ ne que demb coach Aliou Cissé génne na liste des joueurs yi war a dem euh, coupe du monde waaye absence su Saliou Cissé lan nga siy xalaat. bon absence Salif Ciss bi lu ma si xalaat mooy euh, dès le début agent am waroon na ko utal au moins fu muy compétir parce que quand on parle euh, de la coupe du monde c' est le haut niveau en fait c' est le haut niveau mënu mënuñu jël risque tamit jël jour boo xam ne amul benn compétition te ba léegi amul benn match officiel bu mu football en fait agent am moo def défaut il aurait dû lui chercher un club en fait c' ça mais euh, am nañ ay yeneen latéraux comme le cas de Fodé Ballo-Touré ak euh, Ismaël Jacob yaakaar nga ne que ñooñu noonu ils peuvent euh, assumer genre rôle bi Saliou Ciss doon jouer surtout offensivement. bon rôle bu Saliou Cissé joué si mondial kii Coupe d'Afrique autant pour moi on sait qu'il a joué un rôle très important dans l'équipe parce que côté défensif il était bien il a il, il avait aussi un apport offensif mais par contre Bayo Touré am na lu dese lu am lu lu mais il faudra que plus de travail à ce que voilà côté gauche bi ñu am loo xam ne lu solide la quoi bu Saliou Cissé di teg foofu kenn. tu as confiance en cette équipe yaakaar nga ne que on peut aller très loin dans cette coupe du monde. bon avant tout dañ ko dañuy ñaan yàlla ñu commencé ko si alhamdulilah ñu jeexalee ko si bisimilah autant pour moi ñu jeexalee ko si alhamdulilah euh, di ñaan di ñaanal joueurs yi tamit euh, ñu def coupe du monde bu extraordinaire. dañuy naan ay Afrique musuñu am coupe mais dañuy ñaan yàlla équipe bii ni mu doon équipe boo xam ne moom mooy ñëkk jël coupe d'Afrique coupe du monde si si Afrique si Afrique si si pays africain incha allah rabbi waaw asalaamaaleykum sëñ bi nuyu naa leen nuyu naa sénégalais yëpp bon en fait man lu ma bëggoon wax si surtout si euh, coupe du monde bi mais maanaam sénégalais yëpp ay entraîneur lañ ay coach lañ nañu wàññi wax bi Aliou Cissé boo xam ne peut-être xamul dara dafa am chance tamit mais yàlla moom la fi teg jël na fi coupe d'Afrique def na fi lu fi kenn deful nañ ko bàyyi mu liggéey nañu wàññi wax bi fii tout le monde ay coach lañ te xamuñu dara nañu wàññi wax man loolu laa bëggoon wax merci. ñu ngi lay jaajëfal.